mel ni de lépp yomb si kàddu yàlla waaw ñun yàlla moo ànd ak ñun lépp. maa ngi lay nuyu. si loone si loone ba war. mais lu tax nga attaqué sa waay nii lu tax nga loo koy attaqué. ah. Jackson. lan mooy seen problème yéen ñaar. waa Jackson sama. waaw looloo tax ma jël ko. le 14 incha allah rabi dinaa ko wane du ma moroomam. lan moo tax nga fecc ba ci kanamam di ko wan sa bopp. c'est parce que sama yaram mooy xasan damaa bëgg a bëre dafa am lu may wane damaa bëgg daa am lu may wane est-ce que kii wane mën ngaa wane ci moom dara. barke alxuraan incha allah rabbi dinaa ko wane si moom le 14 incha ma wane ko. da nga yàkkamti combat bi. mënul xajamal sama yoon Jackson mënul xajamal sama yoon. loolu nga yàq maa ko wax incha a wax waaw. Paul bu daaru. mooy. Paul mu daaru Paul mu daaru. Paul a ngi. waaw siyaar nañ la. Paul koy bëreel. ah. kan ngay bëreel. bébé Ama bébé Ama. waaw bu Pikine mbooloo. moom laa war a la 14 incha allah combat spécial. si diggante Pape Ndoye ak Jackson. di ñaan yàlla même suñu seddu guy. waaw di ko nag moom li mu waaj na xam ne doyul. bàyyi booy baa ngi waaj ñu bëri doole. na waaj bu baax. yaa ma gën a xam lay siyaar bu baax. làmb bi gën a bu nekk foofu. am na solo. ñoom ñaar ñu am suñu yóbbu làmb. signature de contrat mi ngi soog a am ci saison bi. mayuñu ko benn mbër. ñu may ñu chance ñun ñu nekk ay xale. ñu may ñu chance fii nañ leen ci profité ñu wane ne làmb amul violence ngir yàlla ak yonent bi. mais buñ dee def nii gars yi gis ngeen fi làmb tollu. mbër yi mënuñu am combat dara mënu li ko waral lii rek la. dañ naan booy dañoo bari histoire dañuy xeex ngir yàlla. léegi bu leen ci seet kenn seet ma ci man mii seen xarit bi jàppale leen ma ah waaw aka rafet na ñu dem bi mu tàmbalee dafa ni fi ma dëkk laa koy tàmbalee dama koy jox ki nga xamante ni nii fi ma dëkk moom it foofu la dëkk muy maître Babou di loo xamante ni nii yaakaar nañ ne mbokk yi ndam ñu ci sandaat bu baax a baax nag di leen bëggee mbokk yi di leen nuyu di am mbégte bu baax a baax àndaat ak yéen ci li nga xamante ne nii moom mooy làmb mbokk yi làmb nag tàmbali na làmb tijji na bu ñu ko waxee jàkkaarloo tàmbali na combat yi mi ngi am waaye dafa am foo xamante ne nii foofu la toll def fi mu tollu te fi mu toll ñun waa làmb ñun rek ñoo mën a defar làmb moo xam ngay mbër moo xam ngay promoteur moo xam ngay ménager moo xam ngay amateur moo xam ngay supporter moo xam nga bokk ci CNG booloo bokk nay bokk bàyyi rek moo mën tax suñu sport bi nga xamante ne moom la ñuy def mu yegg ci kaw te yaakaar nañ ne booloo gi nga xamante ne gis nañ ko ci fii nga xamante ne fi la ñu teew promoteurs yi nga xamante ñoom ñoo fi nekk tey Abdou Lahad Ndiaye jiite loolu muy loo xamante ne nii lu am solo la yaakaar nañ ne ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii ñi ngi doxal làmb mbokk yi tey ñu ñëw ci bés boo xamante ne nii dañoo boole xale yi nga xamante ñoo gën a xarañ ci seen génération mbokk yi bu ñu leen waxee xam ngeen xale boobu nga xam ñëpp ko fi bàyyi ñaar la dëkk Grand Dakar la dëkk takku mbër la champion la di ko xamante ne nii moromam yi muy bëri moromam yi ñu war a yëpp kenn nanguwu ci bëri ak moom ndax lan ndax xareñam kenn nanguwu ci bëri ak moom ndax lan ndax fitam kenn nanguwu ci bëri ak moom ndax lan ndax jom ji nga xamante ne nekk ci moom muy Papa Ndoye bu écurie Fass ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax ma bu leen def loolu mbokk yi Pape xale bi muy bëreel dañoo xool ñi mën ci làmb ñu jox ko Jackson mu daan leen mbokk yi keroog maa ngi fàttaliku bis bi nga xamante ne nii ci lañ bëre ak sang mu nekkoon ko boo xamante ne nii man mii maa leen di seetaan mais jox ko woon favori waaye bëre ba mu fa bëree fulla gam fa wane fit gam fa wane ndax na tey jii mu war a mën a bëre ak Pape Ndoye Jackson di mën a dëw ma bëgg ngeen dugal ko waaye dem leen toog yéen ñaar di ngeen laale da ngeen a namante di ngeen laale de dem leen toog la 14 yaanatul kii Baba Diaw yamul foofu ndax dafa ànd ak ki nga xamante ni nii bu làmb doxee moom dafa daf ci am cër muy Abdoulaye Khat Ndiaye te bu ñu xoolee xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci làmb ñooñu lay boole. mbokk yi xam ngeen pool bu daaru mi ngi nekk ci jëf soog a nekk xale la boo xamante ni nii ndaanaan na ci li muy def di koo xamante ni nii moom it ay moromam lañ ko booleel moom daan leen dugal ko. koo xamante ni nii Pikine la yeewoo di ndaanaan moom tamit tuddee boppam koo xamante ni nii moom la ñuy wax ndaw muy bébé ama bu Pikine booloo tugal ko boo xamante ne nii xale bi fii lay ngemboo ci Medina Gueule Tapée Colobane fas Grand Dakar muy kan ñu ne Mbagnick Kaïré di doom ci Boy Kaïré yàlla doon jàmm muy ki nga xamante mooy Jacob Baldé kon yaakaar nañ ne bisu la 14 bés lay doon boo xamante ne nii bés bu mag la ñuy kontaan bu baax a baax ci Baba Diaw ci choix yi nga xamante ne def na ko ànd ceeg Abdoulaye Khane waaye ñoom yemuñu foofu xëy na mbokk yi dina ci daje ak ki nga xamante mooy Boy Niang 2 Baba Jaxal dina ci laale ak Adidas surprise moom dina ci daje ak ki nga xam mooy Coor Bouloutouf bu écrit face dina ci laale ak Assane Modlo moustique numéro dina ci daje ak Africa Pub Modou Afia moo fay laale ak ki nga xamante ne mooy ndigal waaye les deux booy kii di Bada dina fa laale ak Mbaye Tafaté mbokk yi dañuy dem jaajëf Abdou Lahat Matar Ndiaye Sooru Fall ñooñu ñooy ménager yu mag a baax di kontaan ci ñoom mbokk yi woo booy bu dëkk ci dëkk bi papaam dimbal di ndaanaan magamit dimba di waaye man barewu ma ci jéem ci yow laa bare aca dugalan bañ a kere booy kaay taxaw ni maa ngi yow la lu leer laa lay wax maa ngi lay nuyu tey lan nga wax ci def sa signature de contrat ci sa koñ

combat la boo xam kuy amateur boo ko déggee di nga xam ne combat buy neex lay doon xale bi ngay bëreel looy wax ci moom ak lan ngay wax ci préparation combat bi. sama adversaire ñëwul mais dama koy xamal ne stade Iba Mar ak stade Pikine lépp benn la dafa nekk avance promoteur bi na ñëw bëri moo gën stade bu buggee sa mbundu kër sax mën naa fekk bëri moom na ñëw bëri. fan Pikine waaw dafa lekk avance jàmm na ñëw bëri na baa yooyu. mbaa sa koñ nga nekk di wax nii. non non dama dégg ay égo quoi na du bëri na ñëw bëri la 14 loolu yàggatul. pare naa pour tijji nag ma moom dañoo bëri moo gën dama lay xaar si jàmm. ñëwul. luñ ko fi wax rek dañ koy jëw nekku fii dañuy bàyyi ba mu teew wala ba ngeen gisante léegi lan ngay wax say supporters lan ngay wax ci bisu la 14. non dama dégg na moom dafa am dafa def dafa def choc. bëri yéen yi daa am quoi man yow mars. maa Sida Marine Derkele gaa yëpp waaw dañoo bëri na bàyyi yooyu xale da ngay def xale dañ bàyyi affaire de ragal yooyu yooyu amul. Mbagnick bëgg nga combat bi. tàccu la ko bu baax a baax kooku ak Mbagnick Kaïré ñu ngi koy jaajëfal bu baax a mbokk yi dañuy dem ci combat bi stop Paul bu Daaru moo koy bëre ak bébé ama yóbbu leen laa ilaaha illallaah ku njëkk a nuyoo si yéen ñaar ku ëpp fit kan mooy njëkk a nuyoo amoon ah, ah, may sant bu baax sant suñu ñaari waajur bu baax xam nga di sant waa Tiwaawan bu baax di ñaanal suñu sëriñ si mbéy mi yàlla na ko fi yàlla boole di ñaanal kilifa diine yëpp yëpp maa ngi bëgg sama gars yi nga xamante ni ñoom laa àndal avant tout ñu ngi suñu seen maire Fouta DG El Hadj Malick Gueye ñu bëgg nga jàpp si combat bi bu baax sama monsieur le maire Pape Niambe aw ma fay moom mooy jàppale bu baax a baax ah ak Abdoulaye Diouf maire aw ma fayam ak professeur maa ngi koy woo si combat bi bu eh yow balaa ngaa woote waxal si combat bi loolu ma wax moom combat bi ni man bu soobee yàlla 14 maa ngi toog plateau alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi ñaar waaju di nuyu mbooloo mu fi teew ñëpp di nuyu ku ne ak sa tur ak sa sant di nuyu promoteur bi Thiam production di masaw suñu mag bombardier yi waaw magam Pape Thiam ñu koy jaale bu baax yàlla na suuf sedd si kawam suñu grand frère Zilbal Junior ñu koy masaw moom bu baax yàlla na ko yàlla defal wér incha allah mu jóg delluwaat ay activité ñu koy ñaanal bu baax baax di nuyu sama adversaire bébé Ama di nuyu mafia bi ma àndal sama gars yi rawatina daaru cubu gi ma jógee maa leen di nuyu bu baax Kër Massar maa ngi nuyu sama course yi ma àndal ak sama grand bu ñàkk ki ñaan moo jël otom tey indi ma fii nii barke Seydina Ahmed def si instant def lépp Pape ok maa koy bëggee bu baax a baax baax di nuyu waa daaru cubu yëpp di wax ni xool Modou lakados gars yi looy wax sa waay loolu ngay wax ci moom xam nga ko champion la ndaanaan la bébé Ama damay wax ak moom pire xam la ma damay wax ak moom damaa war a wax ak moom tey bisu wax la lakados mooy bi si amee dégg xam la laa lay xamal yaa ngi jàpp ne am nga doole amoo doole loo doon def bu yeboo na nga ko doublé si deux semaines loo loo deful ba léegi def ko da ngay yàq combat bi rek foo ne yow bébé ama amoo doole te bu 14 naa la woon amoo doole doole du wax pool dëgg bu arbitre sifflé di nga xam ko am doole ak ko amul doole maam Serap Fall xam na ne foo taxaw ma fekk la fa dama la koy tumbax di la ko rimbax yow yow yow daa mel ni yow yow daa mel ni da nga kontaan yow daa mel ni da nga kontaan. amateur musuñu maa jéppi. yow sept combat nga def quatre défaites nga am trois victoires. yow daa mel ni yow da ngaa jiw yow daa mel ni yow la. yow sept sept combat nga am am quatre défaites trois victoires. yow daa ni yow da ngaa juum wax. déggoo lu ma la wax déggoo lu ma la wax yow da ngaa di wax rek. ñaata combat nga am. déggoo lu ma la wax ay ñaata combat loolu yëpp amul chance déggoo ma de déggoo yow combat bi daa la waroon taxaw nga daw ko di laaj ay xaalis bu bëri. ngay nekk fii di ndellu di wax. yow eh eh eh man musuma delloo avance su mbër. déggoo lu ma la déggoo lu ma a xanaa toolu daaru mu wax wax ji yu bëri yëpp amul sax la ñëw na ba pare. yow wax nga am si lamb ma noonu wax nga am si lamb ji. seeboo nga wax lu leer daa lay wax waxal. waaw man avant tout moo lamb dafa metti lamb ji dafa metti man damay woo ñu ma jàpp si combat bi pour xam kii la su ma tegee plateau dinaa wax. xam nga combat a njar ndéem la combat la. waaw baax lu leer daa tegal njar la combat bu nante yi. na maître Baba Diop ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. ngay doomu Gueule Tapée Baba Diaw dëkk Gueule Tapée tëgg làmb jox la drapeau bi muy lu njëkk ci moom lool lu loo yëg ci loolu. waaw fierté d'abord parce que Baba maa ngi moom ñoo bokk gox bi mu nekk jeune ma nekk jeune euh, mu am nekk xale bu am njëriñ ci gox bi am fulla ci li muy liggéey. donc tey bu duggee ci làmb euh, journée bu njëkk mu tuddee ma ko dama ci am mbégte mais loolu du lu ma bett moo tax dinaa ko ci gunge ànd ceeg waa Gueule Tapée yëpp jàppale ko ci lii nga xam ne mi ngi ci jublu yàlla defal ko ci ndam mu doon ndamalu Gueule Tapée d'abord ensuite ndamalu jeune Gueule tàpp yëpp donc moo tax tey dañu am mbégte teew ci bes bi nga xam ne mooy bésu Baba Diaw bi di signature contrat bi di xaar incha allah yàlla jàmm ñu fekkee la 14 ñu gunge ko. ànd ak mbër yi nga xam ne tey gis nañ leen ñu présenté wu nekk xale yu am jom aussi ñu def bés bu mag fii ci réew mi voilà donc loolu la amoon lu ciy waxagum. ku gañe drapeau bi lan moo koy xaar. waaw drapeau bi xam nañu ne dina am dina doon bés bu mag ndax Gueule Tapée xam nañu ne quartier d'abord la boo xam ne quartier sportif la quartier sportif la am na aussi ay écuries yoo xam ne ñu ngi fi donc bu doomu Gueule Tapée jógee tey jël bés bu tol nii. jagleel ko doomu Gueule Tapée muy maître Baba Diop ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñëpp muy maître Cheikh Tidiane Diouf mi toog tey ak ensemble la nit ñi nga xam ne ñoo ma jàppale ci mbirum euh, politique bi may def donc ton doolu dama xam ne mënul doon bés bu tuuti bes bu rey moo ñuy xaar le 14 décembre ànd ceeg Baba Diaw ànd ceeg Thiam production ànd ceeg waa Gueule Tapée yëpp ak axlu làmb yëpp feete bes boobu voilà voilà jërë ngeen jëf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 Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye da ngaa bëree sa diggante ak Laye Gothé sa combat mu taxawaat dafa jafe Jackson da ngaa bëree sang dimanche mardi bi nga war a jël sa reliquat su ma juumul peut-être ngeen ma fekk yéen ñaar ci bisu suñu yéen ñaar ngeen ñëw def seen présentation pourquoi nga def choix boobu. waaw loolu yàlla dogal la rek waaw ñu ñëw nga ko ah ñu déggoo la. jaajëf jaajëf jaajëf incha allah rabu arbitre bi barki alxuraan dinaa ko dàqali dinaa ko jàppale dëgg la dëgg la maa fekkee. Thank you. man dàqali ko attaqué ko ko ne ko kañ Baba Diaw. ginnaaw bi sant yàlla jul si yoon bu tedd bi. suwaabu maître Baba Diop bi lu ko waral. naam maître Baba ku baax la dëgg si maintenant tamit dëgg Gueule Tapée doon euh, mag boo xam ne day defar doon avocat damaa ñu gis ñu muy liggéey si si moo doon ñu am soir pour tuddee ko suñu encore drapeau Jibi Ndiaye nuyu naa la. dafa xam nga sama gars yi ñoom Aba ñoom Papa Ndaw Pape Sega Issa Ndiaye. xam nga ñoom isbu kii. benn xarit bu jigéen la am àdduna. waaw mi jigéen dinañu xaritoo. non kii kii sama ah, ngeen judd. ndax man du ma jaay nit su ma dépasse man maa koy liggéey sama bopp comment la du ma yóbbu sama kër maa koy yóbbu ma jaay doomu aadama su ma giseen su moom loo xam ne tax bool ma ànd moom bàjke boom tubaab du ma ànd ak moom mooma may fit tete ma Djibson euh, ñu ko yàlla bind dafa yéeme